waaw waaw bu jaay obal yi ndeysaan cent vingt kilos région de Dakar moom Ibou Ndiaye borom parcelle borom Diofior 가야 돼. 아, 우리 둘 가야 Semeragi, nagi, nagi,